suivre ci wasaare gannaaw bañ leen nuyoo tey nag dañoo seet si waat gan boo xam ne euh, miin nañu kanamam miin nañoo liggéey moom mu nekk kilifa boo xamante ni kenn dootu ko présenté wax El Hadj Ibrahima Niass rek euh, ko ci am kàddu ku am tur ñu koy jaajëfal bu baax ci jàkkaarloo bi ñuy jàkkaarloo wax tey ci wasaare kilifa gi ñu bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala quwata illa billahi al aliyul azim amma baxdu nuayikum jamiatin islaam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen tatagal di leen baalu àq di la fay tubaarakallahu macha allah mhm. mhm. dañuy dem directement rek ci biir laabirante bi laabirante sax laa koy wax mhm. ndax euh, kilifa xam ana mhm. waaw fa lilahi alhamdu wax nga wax ju am solo bëri na nit ñi daw utali pajum cosaan ci nit ki feebar bëgg faju faju wala nit ki am soxla bëgg a ñaan lu yàlla sa xel li muy daj rek mooy sëriñ sëriñ nag dañoo bëri façon dañoo bari lool jamono jiita bokkuñ façon waaye nag nit moom ci doomu aadama soo bëggee nekk sëriñ faw nga nangoo taqoo jaamu yàlla faw nga nangoo taqoo ragal yàlla faw nga nangoo taqu jub ak lekk lu lew saa yoo ko defee rek ku daw jëm ci ci yow dana fa fekk lu fa caajo donte la yàlla mooy faj aajo yi waaye nag jamono jii dafa yàqu ba nga xamante ni dañ naan ah métier sëriñ de dox na man de gis naa sëñ bi léegi mi ngi am oto mi ngi am nangam ma daw dem gaaw daal di dem dugg ci léegi bëri na waaye nit ki saa yoo koy ñaanloo yàlla war nga xam kii ngay ñaanloo yàlla mooy ban nit ban façon nit surtout nit ku nekk su fekkee ne ñaan yàlla daf ko donn nga xam kan kii kan mooy ay waajur ak fan la jëlee ñaan yàlla ndax ñaan yàlla nekkut ne da ngay jàngi alquran mokkal alquran jàng xam-xam rek ñëw ñaan yàlla déedéet mun nga nekk xaarif jàng alquran mokkal alquran luñ la cuq ci alquran nga xam ko te mënoo ñaan yàlla parce que xam nga lu tax maanaam leeruk ñaan yàlla gi ci nit nekkul ci yow nit ki mën na ñàkk a mokkal alquran yàlla may ko ci leeruk ñaan yàlla ba lépp lu bind ci loxoom ci xalimbaam yàlla dogal ci loola nit kooku jar na daw dar na dem neexu lañ xàmmee nag waaye neex nañoo xàmmee parce que kàddu gu neex su fekkee ne ci nga déggal nit dem parce que léeg-léeg ñu bari dañ ma koy wax ci bitim réew ne ma man daal sëriñ bi am na sëriñ diw boo xamante ni yàlla dogal na ñu seq ci wàllu ñaan yàlla ma yëkkati alal yónnee ko keroog bi ma ko yónnee alal keroog laa ko gëj a dégg du ma woo su ma ko woowee du ma jël léegi-léegi sax ñeneen ñi may jël ay saaga nday lañ may def ma waa parce yow da nga toog rek dégg ne nit ki mën na ñaan yàlla rek nga wóolu ko jox ko ko nit dafa am nooy tasee ñaan yàlla man moo tax nit ñi lu bari léeg-léeg ma seq ak nit ñaan yàlla mun ne ma sëñ bi wax ma lu ma lay jox loolu nit mënut am bayra ba ma wax ko lu ma jox parce que ñaan yàlla comme ni ma koy waxee ci ñëpp rek du ma ko mos a jaay ndax yàlla jaayu ma duma ko jaay waaye nit nag ñëw ne la ah damaa bëgg këyit wala damaa bëgg takk soxna wala damaa bëgg nangam nga ne ko jox ma téeméeri junni jox ma cinq cent mille jox ma nangam ak nangam loolu nit ki nekk ci jafe-jafe nga bëgg ko yokkal jafe-jafe kook kook du ñaankatu yàlla ñaankatu yàlla piir day laa biir ñaan yàlla dafa metti soo ci dëkk di ko def foo nga sell lekk lu lew nangoo jaamu yàlla tey dox lu lew tey dox ci lu jub loolu daal képp ku koy def soo ko ñaan loo yàlla mu fali laa alhamdu sukur ñaanam nga mhm. faj mm bu ñu mhm. waaw su fekkee ne ci réew mi la parce que ñaari soxla moo am soxlaay ñooñ réew mi ak soxlaay ñooñ bitim réew bokkuñu bitim réew dañu am seeni soxlaay bopp waa réew mi dañu am soxlaay bopp soxlaay góor ñi ak soxlaay jigéen ñi bokkuñu. ku nekk da nga am ay soxla suñ fi noon toog di ñu wax nañu waa réew bitim waa Amérique lii la ñuy waa France lii waa Sénégal lii waa kawlak lii waa dakaar lii konoon fi la ñuy fanaan te jeex. waaye góor ñi ak jigéen ñi daal bokkuñ soxla yu ñuy ñaanloo rarement lañ koy bokkule ñi nekk biir réew mi ak ñi nekk bittim réew bokkuñ soxla ñu ñaan ñi nekk bitim réew parce que ñoom dañuy wéet dañuy wéet torop parce que dañoo bàyyi ci lu bari ci seen gannaaw bàyyi fi soxna bàyyi fi ay wajur nekk ci àll bi ñu bari foog ne seen àll neex na te seen àll neexut ñi bëgg nag lu neexal seen àll te tubaab li xew ci réewum Sénégal xewut ci réewum tubaab ndax li am fii amut ko dañ naan la am sëriñ bi gasal suulal xëppal kii defal lii loolu amul ci réewum tubaab moo tax ñoom seen ñaan yàlla dafa métti ñoom suñ la ñaanloo yàlla danaay wax ne moodu moodu dërëm bu la jox jox ko sëriñ sonnal ci ñaan ko ñaan lu ko yàlla parce que ni mu koy amee moo métti ñoom dañuy daj lu bari dañuy soxla këyit ndax ku amut këyit doo fa liggéey te këyit nag dafa mel ni doom bu góor ci ñoom jafe lool lool lool lool lool fu ne la ñuy daw léeg-léeg nit ki woo la ne la man daal sëriñ sëñ bi ñaar fukki at fukki at ak nangam maa ngi ci réew mi maa ngi ñaan lu këyit sëriñ bu ne lekk na sama xaalis mënumaa fexe ba am kayit waaye gis nga sëñ bi sooy ñaanal nit ki wàllu kayit wala wàllu leneen te gëstuwoo ay mbiram ci lu am jafe-jafeem kooku da ngay sonn ci ñaan gi rek mais du am nit ki da nga koy gëstu ci moom def ci ay fanaanu def ci listixaar xam lii ay mbiram saraxam nga xam ko su jalee riyaada riyaada muy tëju ci nit nga wax nit mu mu tëjul la ci toog ci jël sa tur wi ak nangam sikkar yooyu yëpp ak ay sarax yim lay def ay cangat yim lay jox yooyu yëpp soo ko defee rek yàlla mën na laa dundal ba ñu nekk bitim réew yàlla fa seen aajo ñi nekk ci biir réew mi nag ñu ci ëpp moom ci wàllu jigéen ñi wàllu ah nu may def ba am rek nu may def ba am ak waa ji ma topp kii ma topp góor gii laa bëgg nangam nangam yooyu yëpp kenn ku ne waaye man nag ñaan ci caaxaan moom duma ko def man du ma ñaan ci caaxaan man lépp lu may ñaan rek dafa fekk ne dafa méngoog lislaam loo xam ne lu yàlla gërëm jógee la man daal dama gis benn xale bu jigéen bëgg naa nga ñaanal ma ko mu topp ma man daal lu ma ko wax mu def ko léegi yow tàggatal nga ko ko su ne xale bu jigéen bi damaa bëgg ñu dajee ci néeg bi xale bu jigéen bi fekk ko fa su ne damaa bëgg ñi dem hôtel mu fekk ko fa damaa bëgg fee ñi dem mu fekk ko fa léegi ñi mooy yàlla loolu ñaan ci caaxaan la waaye ki taxaw nag ne la damaa bëgg soxna dama koy faral di wax nit ñëw ne ma ah, man de sëñ bi damaa bëgg soxna waaye dama koo xool daal man moom laa bëgg moom la ma yàlla man daal wax su ma sañoon nga ñaanal ma ci yàlla ma ko ah ndax da nga koo bëgg wala fo mu ne ma bëgg laa ko def bu njëkk dama daan ñëw rek defal la ko nga dem nit ki topp la ngay mooy ma ci am bàkkaar léegi nag caaxaan taxawul ma def loolu loolu lu wér lu wér mooy tax ma defal loolu ndax loolu suñ la ko defalee rek fali laa am doo sukkur ndaw si moom yàlla mën na la ko koo tàggatalal alhamdulilah mu guddi mun naaj yàlla dana la tàggatalal ndaw si incha allah ci kàttan yàlla mm-hmm. waaw loolu moom alhamdulilah rabbil alamin yàlla dimbale na ma ci yàlla nag moo am solution ndax man ow ma lu ma def te yàlla antu àndu ci rek loolu da am lu ma def rek yàlla su ci àndee rek loolu lay am alhamdulilah euh, loolu bari na bari na trop am na ñoo xamante ni wax nañ ma seen soxla ne ma ah, man de damaa gis diw bëgg ko mu takk ma ma ne ah, bala nga ko bala ngaa wax mu takk la doo dem gëstu ay mbiram xool léegi-léegi ma wax ko nit xool defal ko listixaar xool ne ko kii sa jëkkër ji soo ci takkee baaxut ci yow wala baaxut ci moom léegi-léegi nag am ñu dëgër bopp ne ma ah, man ñaanal ma ci rek su boobaa nag dinaa la ci ñaanal parce que yaa ko ndax wax naa la li ma li ma gis am na ñoo xam ne damay gis ma ne la ah góor gii ngay tànn dee jëkkër njëkk ndax jigéen danay takk góor dana koy takk jigéen gi ubbeeku ci moom ubbeeku ci góor gi góor góor danay takk jigéen ubbeeku jigéen yi da koy takk moom mu ubbeeku yow fa nga nekkoon nga nekk fa parce que seen i la fi ngeen di nekk la ak loolu léegi nag loolu da ciy am yàlla ñuy suturaal wax dëgg yàlla soxla yooyu moom alhamdulilah rabbil alamin am na ñoo xam ne ñaanal nañ leen seen soxla yi fajuwu ci waaye yaakaar naa ne comme fii moom xam nañ ñoom danañ xam seede lu bari ci loolu incha allah. waaw day rab da koy def rab jamono ji rab dafa bari lool lool lool lool lool bari da ngay gis ñu ne la diw dafa réew fekk reewaa nga yëpp rab la. parce que euh, léegi nit ñi ni seen solin góor ñi ak jigéen ñee ci am seen solin ak seen waxin ak seen doxalin rab daf koo bëgg li rab bëgg noonu la ñuy doxee maanaam jigéen ñi wane say awra wane say cër loolu la rab bëgg rabu seytaane loolu la bëgg moo tax toujours rek yàlla nattu leen ci loolu gis nga jigéen ñi nga xam ne yàlla da leen a dimbale ñiy sol du sellal di def lu yiw ñun jëkkër leen de ak nuñ man di mel jëkkër tewu leen yàlla dana leen dimbale dana leen jox waaju baax waaye nag ki nga xamante ni moom li ñuy wax euh, xale yi li may wax am na sama benn nit bu ma ñëwoon naan ma moom daal man daal ci soo biis bi laa ne ma ne ko luy soo biis bi mu ne ma soo daal mooy euh, dund sa àdduna xaw ma dund sa monde xaw ma toj sa moondo ma ne ko waaw toj sa monde boobu ba monde bi toj la loolu moom euh, dana yéeme di mu ne ma ah, léegi nag ci loolu laa ne damaa bëgg nga ñaalaal moom mu dox ma ne ko lu ci mu ne ma xale yu góor yi daal di ñëw ci man jéem a jox seen alal seen procès yi ma di ci bokk ak ñoom ma ne ko loolu am na lu ko gën a ma ne ko tànnoo ci ko la koo koo bëgg mu takk la mu ne man daal sëy bi daal damay bëgg a bàyyi ba ci kanam teel na daal léeg ma ko waaye nag waaye nag da perte danga perte parce que xam nga lu tax ngay perte da nga dem ba ci kanam yàlla dana dogal góor ñëpp lañ bëggoon ci am ci yow ñoom am nañ ko ci yow ba pare yow nag la nga bëggoon a am ci ñoom doo ko am ci ñoom léegi alal ji parce que alal ji day jeex euh, sa ndaw jeex nga jëm mag ñoom ñi dem seetiwaat xale bu ndaw utiwaat alal am ko takk ko bàyyi laf fi nga nekk fi nag nekk maire bu màggat ci koñ bi di saaga ndey di di di xultu ku ñu wax nga ne diw dafa xëñaan dàngam ak nàngam di jëw di def loolu rek nga fiy nekkee loolu rek ngay mujje mu ne ma ah loolu de doy na waar xaw ma bana xaw ma bawul nag waaye loolu daal laa ko mujjee moom alhamdulilah. <laughs> waaw danay am ci fiira waaye fiiraange rek lay doon mooy fi ngay liggéeyee su dee góor nga yàlla dajale na fa ak jigéen goo xam ne bëggante nga fa ak moom te jigéen googu dafa am rab rab boobu dana lay yàqal su fekkee ne nag jigéen nga nga dajee fa góor goo xamante ni yàlla dogal na dafa am lum àndaaleel te loolu bëggul nga ànd ak moom nga bëggante fa ak moom rab dana lay defal loolu rab dafa bëri lu rab daal lépp lu yàqal doomu aadama rek rabang ci lépp loo xam ne nit mën na koo laal ne lii yàqu na rek rabang ci attaa ba ci kër nga toog sa kër gi di màbbu di toog ñu ne terrasse bi bañ ko kuulee yàggut rabang ci ndax kër soo ko tabaxee ci dëkkuwaayu rab mu toj ko oto yi daanu di këpp rabang ca mën na koo def rab daal lépp loo xam ne lu yàq la rek rabang ci moo tax muslu ci rek te ñaan yàlla daal am ay gàllaaj yoo xam ne yàlla dana la dàqal ay rab loolu moom am na ñuy mhm. waaw dama koy def léeg-léeg nit am nekk sax bitim réew ne ma man daal damaa jënd benn terrain su ma sañoon nag nga defal ma fa ay ñaan ma defal ko listixaar xool léeg-léeg ma dem fa léeg-léeg du am jotu dem fa euh, ma ne ko demal def fa sarax bi tuur fa deret ji wala nga def fa laax yi wala nga def fa nanga léeg-léeg ma doxantu sama tànk ma dem fa ca moom defal def fa la mu fay def suñ tabaxee ba tabax ba yegg bala ñu cee sanc ñi am luñ fa defaat ndax kër képp ku ko dëkkee ci loxooy nen génnee fa loxooy neen ndax doom kër gu ne kër goo gis rek dafa am ay ay ay kii yoo xamante ni euh, rab doomu aadama am na benn kër gu nekk lew na ñu seen ñi koy wax benn pour ku ñëw leen ñu seen rek xam na ko daanaka moo jàkkaarloo euh, jumaa ji euh, kër googu képp ku fa dëkk képp ku fa dëkk rek tubaarakallaahu da nga génn àdduna képp ku fa dëkk rek noo def ak soo fa duggoon ku fa duggoon tey bala moo am weer rek ñu génnee fa néew ku fa dugg te kër ga fuur la woon ñu def ko fuur fuur ba di tàkk luñ fa def mu yàqu luñ fa def mu yàqu ba kër ga ma nga fay ne te Mame Alhaji Abdoulaye jamonoy Mame Alhaji Abdoulaye Niass la ñu ko waxoon ba jamono jii Mame Alhaji mi ngi génn 1922 la génn àdduna ba jamono jii ni may wax ak yow kenn dëkku fa ña ngi ko tabax doon fuur muy miir baa ngay daanu kenn dëkku fa te boromang fa munu koo jaay su ko doon jaayee tey 300 francs te kër gi 30 sur 30 la mu lew nañu seen duñ ko jënd kon rab am na ci kër mën na nekk tabarakallah mhm. waaw dafa am dëkk yoo xamante ni rab woo xamante ni moom dàq ko ci kër yombut waaye nag benn solution bi ci njëkk mooy sa kër soo ko tabaxee mu am rab nga xam ne lii rab la nga dem ci li ci ëpp gën cee gën a gaaw mooy aal ko daaray alxuraan nit ñi di fa jàng alxuraan soo joxee daaray alxuraan ñu jàng fa ren ba déwén ñaari at soo fa duggaatee lépp lu fa nekkoon jóg na gis nga rab bu bon alxuraan rek la bañ doomu aadama sax damay faj man su may ñaanal nit koo xam ne dafa am rab damay wax na ko demal nga jëndi kaamilu alxuraan saa yooyu tëdd nga teg ko sa wet alxuraan àndut ak rab fu rab bu bon saytaane wu nekk su alxuraan jegee mu daw lu ko alxuraan jege rek mu daaw léegi nag kawatina nag ñi toog fa bët bu set ñaa alif laam miim zaalikal kitaab di jàng ba minal jinnati wa naas loolu rab bu fa nekk rek yàlla mën na koo dàq ci kàttanu yàlla mhm. Mm-hmm. waaw am na siti ndoxu siti loolu am na siti dafa bëri lum lay indi parce que siti dafa naqadee faj lu tax mu naqadee faj man su ma koy dindi faj ay doom ak doomu aadama traitement lay doon ndax xam lu tax moo tax parce que feebar bu nekk ci deret feebar boobu neexut a faj te ndoxu siti ci deret la ne su fekkee ne feebar bi nag ci sidit la ne wala ci suuxu yàpp la ne kooku moom wala ci yax la ne mën nañ ko faj ndax su say yax di mét soo amee ay pommade ki soo ko ci diwee su yàggee nga ne ah man de alhamdulilah rabbil alamin wér na parce que ci yax bi la loolu dëggu na ci su dee da nga ne sama suux bi lii dafa dagg mën nañ ko opérer ñawaat ko nga dem ba foog ne kii musuñ koo opérer muy doxa ca loola su fekkee ne sidit la sidit bi mën naa dagg ñi jël sidit bi am nuñ ko faslante ba sidit bi doxaat ci yëfi tubaab waaye su fekkee ne feebar bi ci deret la ne kooku neexut a faj te ndoxu siti nag ci deret la ne moo lay indil hémorroïde bari na ñoo xamante ni seen hémorroïde yi ndoxu siti moo leen ko def moo lay indil coli coli sa yaram bi di mel noo xamante ni wala ngay xasan dana lay indil borom bopp nga toog rek sa nopp yi di xasan rek ngay def nii di di di yëngal sa nopp yi naan xoo xoo ngay nalaw di di xërën xoo xoo yëpp lu ci ëpp loolu da koy def wala nga toog sa biir bi naan góor di riir di riir wala ngay toog di ngalawal ci lu bari yooyu yëpp ndoxu siti dana koy def mooy indi jàngoro yooyu mooy jur jàngoro di jur di jur di jur di jur di jàngoro yu bari ba indi la lii lépp moo tax waaye nag alhamdulilah rabbil alamin ay traitement la yàlla ñu ciy dimbaleel falilahi alhamdu sukkur ñu baree baree baree bari yàlla dimbale nañ ci ba ñaanal nañ leen ci ay traitement bañ topp ko ba alhamdulilah rabbil alamin danay tële it góor danay tax góor du nekk góor danay tax jigéen du am du am doom loolu lépp danay ndoxu siti man na ko téye jigéen ba nga dem hôpital lu ne ñu def ko fekk ndoxu siti rek moo la tere am doom wala nga nekk góor goo xamante ni nga ne a ah, man daal su may sëy du ma gaaw damay gaaw a yëg sama bopp wala du ma samay mbir du jog yooyu yëpp ndoxu siti man na koo waral yooyu yëpp ndoxu siti dafa bari ay nu mën a def ci doomu aadama mhm. waaw ci nit de moom am na lekk yu ñuy wax ne ndoxu siti soo ko yoree da koy da koy da koy moytu waaye looy moytoo ndoxu siti man sama xam-xam àggu fa loo koy fajee daal moom sama xam-xam àgg na fa waaye nag lu koy indi moom ndax luy nekk ci deret la nii am na ñu ne jën da koy indi ñii ne yabooy jënu yabooy yi day indi ndoxu siti ñii ne gerte xaaraan da koy indi soo koy lekk day indi ndoxu siti am na yu bari yu ñu wax waaye bari na yooyu yëpp ñu koy wax ah, am na ñu koy lekk te ndoxu siti sonalu leen ndoxu siti nag feebaru Afrique la bëriwul lu muy ñàkk daal Afrique xanaa kay bu soxor ak bu soxorul ak ki faju ak ki fajuwul rek ñoo ci am. Mhm. Mhm. waaw korobët nag moom wax dëgg yàlla maa ngi ciy yëngu waaye nag ni ma amee résultat ci ay ndoxu siteeg yi aw ma ko ci korobët ndax maa ngi ciy gëstu ba tey yàlla ma ciy dimbale am naa ci ay secret waaye yi ma ci dajaleekum doyagut ma pour ma mën a def loolu loolu moom moo tax daanaka du ma ki mën a parce que lépp lu ma mënut doomu aadama mënu ma ko cancer mënuma koo faj kër bët wax dëgg yàlla maa ngi ciy gëstu mënuma koo faj am na feebar jabet mënuma koo faj euh, euh, tension mënuma koo faj am na yu baree bare bare yoo xamante ni ci ay feebar yoo xamante ni fa lillahi alhamdu wa sukru ma koo faj wax dëgg yàlla doomu aadama day wax dëgg wa qulil xaqu law kaana murran kenn du ñu wettali suñu bàmmeel Euh, bi feeñ ak bi nëbbu dafa am nit koo xamante ni léeg nga gis benn nit mu punka lool ëfu sooy dox di bëtër bëtëri lu bëri hémorroïde moo leen jàpp hémorroïde boobu mën na bañ a génn kooku di dox te du ko xam mën na it hémorroïde bi di génn ci moom te du ko xam mu ëf léeg nga gis nit boo xam ne day jeex tàkk muy sempeeku rek ñu naan moom daal lu ko dal lu ko jiga di lu ko def nii fekk hémorroïde ko jàpp moo koy sempe bam jeex tàkk moo tax hémorroïde ci deret la ne xam nga ki liy semp liy wàññi nit ak liy yokk nit comme seen deret ya ñoo bokkut mais seen deret yu bokkoon su la wàññee wàññi waaye mën naa ëf kee wàññi kii léegi nag traitement yi ci ne parce que hémorroïde dafa am ñoo xam ne seen hémorroïde tey day génn bul ci seen suuf cabinet su ñuy dem cabinet da ngay gis su ñuy waree dem cabinet da ngay gis dañuy tayal sax pour dem ndax su ñuy dem day métti foofu wala ñuy dem sotti deret yu bari mu sottee ko deret yu bari wala mu nekk benn bul boo xamante ni ñoom su génnee pour ñu solaat seen tubéy sax dañuy jëlaat seen di ko bës pour mu dugg. ngir loolu yooyu yëpp ay xeetu hémorroïde dafa métti muy wala nga gis koo xamante ni toogaay bu yàgg sax mënu ko mu dal la nga dem toilette ñëw da ngay gis day dëpp rek day dëpp rek ñu ne moom de daanaka su tëddee day dëpp rek fekk hémorroïde ko sonal ndax jàngoro joo xamante ni dafa xaw a sénégalais dafa xaw rëy am na feebar yoo xam ne su la dalee rek da nga koy rus a wax waaw waa kër gi danañ duñ xam lan la waaye parce que parce que man hémorroïde la nam sama liyeey métti sama suuf gi fii yooyu dafay mel waaye su doon sa loxo bee métti fii kër gi yëpp dañuy xam ne sa loxo bee métti da nga sama loxo bi mooy métti waaye su dee hémorroïde la da koy nëbb te jàngoro na kenn du ko nëbb da nga koy weer ndax yàllaa ko teg nit sax gàccewu mhm. euh, mhm. ñu ji fi mu bëri na lu koy indi dinaa ci lim yenn yi rek bokk na ci rab danay indi télé bokk na ci fowee sa bopp di fo ndaw lu jàpp boppam fowee boppam fowee boppam bay nekk ci quarante ans yow dix-sept dix-sept ans nga commencé nekk ci bokk dekk ci école yi ne dangay am xawma euh, benn jigéen booy génneel xawma nekk ci euh, di ànd ak moom fu ne ngeen dem appartement ak néeg ak hôtel ngay fowee sa bopp Euh, lu ne ngeen ne ci ne ci ne ci ba am 40 ans door di bëgg a takk soxna fekk yow daanaka li suñ suñ waxoon ne euh, tey kenn ku nekk su sa ndox génnee muy doon doom li nga sànni ci ay doom fees na Dakaaru ndax ci mbalit yi li nga ci sànni ci ay doom rek fees na Dakar léegi nag nga bëgg a jóg toog ba am 40 ans daal di takk soxna bëgg koo mënal dara loolu mënul nekk. nit day sa day day téye boppam parce que ku nekk nit ku nekk da koy xool ci boppam tey suñ la su su doon football kat bi la mu am ñaar fukki at nga jox ko bal muy football su demee ba am ñeen fukki at ndax la mënoon ci bal bi dana ko man su dee borom maçon bi la ki yëkkati birig ki am ñaar fukki at di ko def ndax su amee ñeen fukki at la am amoon du ko man yooyu yëpp léegi na nga foowee sa bopp ba am ñeen fukki at door di takk soxna nga bëgg ne mënan nga sa soxna dara ñaar rek kay am sa soxna si du la wekk du la yëpp wala mu bokk ak keneen rek wala nga topp si sëriñ si mënul dara ndax ñi la nax di la nax te fekk yooyu yëpp yaa ko def sa bopp loolu nag lu ma tam léegi nag loolu Euh, danañ koy faj euh, yu bëree bëri dana koy waral wax naa la rab bokk na ci li koy am li koy war euh, ndoxu siti bokk na li koy am li koy joxe hémorroïde bokk na ci li koy joxe fowee sa bopp bokk na ci li koy joxe bëri na daal yoo xamante su ma ko doon lim fa lilaay alhamdu sukkur na loo xamante moo koy joxe. Mhm. koy liggéey waaw am na ci ay garab yu bari yu ñuy defar yoo xam ne ay ndox la. ci yu ñuy naan wax naa ko danaa koy waral di wax yu bari si may sama référence ci sama sëriñ Mawlaay Cheikh Alhaaji Abdullahi Ñas radiyallahu anhu al kabir donte la fekkewu ma ay fekkewu ma dundam ndax mi ngi génn àdduna 1922 1922 ba léegi yàgg na euh, mu bàyyi fi taawam bi Mawlaay Cheikh al Khalifa Aji Mouhamad Ñas mu génn àdduna 1959 euh, mu bàyyi fi Alhaaji Abdullahi Khalifa mu génn àdduna 1992 91 92 mu bàyyi fi nag sama wayjur sama xaaji Babacar Niass mooy sama wayjur mu nekk fi ba 96 mu génn àdduna yooyu yëpp ah ñoo ñëpp amoon na yàlla mayoon na leen ci ay saafara ci lu bari luñ xamoon ci wàllu ay euh, garab ci alquran ak garab ndax man sama ñaan yëpp ci alquran laa ko teg ak ren ak xas ak garab xas ci garab bi dagg ci xob xànc ci ren yi weer ko def ko ay sunguf wala ma def ko ay kii boole kook aaya alquran jox la ko def ci samay ñaan ak léemu jox la ko li ci des ma téye ko sama kurus yàlla ànd ci dogal boobu faj loolu yëpp yàlla nga may dimbale ak ay pomade yi nga xamante ni yi ci ëpp dama koy faral di defee di ko defar ci lii ci li nga xamante ni euh, nit ñi nga xamante ni yàlla dafa dogal dañuy yor awra bëgg ne dañ koo xeeb dafa tuuti ñi bëgg ñoom ne ah ñoom de dañoo bëgg a yokk seeni awra awra danaay wax ne léegi-léegi nit ñëw ne ma sëñ bi man daal damaa bëgg sama yokk sama awra ma ne ko yokk sa awra wala yëkkati say sidit mu ne ma yokk sama awra ma ne ko awra kenn mënu koo yokk képp bépp sëriñ boo dem mu ne la danaa yokk sa awra ah man da dajeewuma xam-xam boobu su fi awra nag day ras day ras ba sidit bi dee nga lii danay dundal sidit bi ba fi nga bëgg mu yem mu nga na nam war a mel mu mel ko waaye nag en cas sa mën a ko ku la joxoon sa baaroom bi ne la jox sëriñ ne la sa baaroom bi mën na koo ñaan mu gën a gudd da ko gëm mu ne ma ah loo koy kenn mënu ko ma ko kon nag te loolu cër la comme cër kon loolu kenn mënu ko waaye nag baaroom bi su sidit bi daggoon rek léegi tey nga gis baaroom bi gàtt su sidit bi daggoon léegi tey nga gis baaroom bi di ras ndax sidit bi mooy taxawal baaroom bi pour mu jóg léegi siditu awra yi nag su demee ba dañ dafa am ay pomaat yoo xam ne moom nga ciy diw di ko ci diw léegi tey rek incha allahu rabbi da nga gis ne fa mu waroon a yem yëpp mu yem fa àgg fa na nga bëgg mu mel nga am ko noonu lay defee ay ndox yoo xamante ay euh, yoo xam ne dañ la koy jox nga di ko naan wala ay sunguf yoo xamante ni lu ñuy defar lu ñuy liggéeyee la ci lu mel ni ay jinjeer rek ay dugub ak ay nangam ak nangam ak liñ koy mooñaalee nga xam ne dool du lor kenn ku xam na ne jinjeer ni ñaa ngi koy naan ak a lekk ku ne xam na ne dugub ak mboq nit ñaa ngi koy lekk ak naan ci yooyu lañ koy liggéeyee ak liñ ci war a def ak yii yëpp ay secret la ñu def la ko soo ko naanee incha allah bi hawlillah wa quwwati yàlla dana la may faj bi nga bëgg a faju incha allah ci kàttanu yàlla. waaw danaa dama koy wecceeku ndax dégg nga li ma la wax yooyu yëpp nekkul man maay bayi dugub ji nekkul maay bayi jinjeer bi nekkul maay bayi mboq bi yooyu yëpp dama koy jëndi ci ci ci ci ci ci marché bi. ak yam yeneen yi nga xam ne tudduma ko di ko ci def yooyu yëpp damay dem di ko jënd ko ci def kon yooyu looloo tax ma di ko ma di wecceeku daanaka mën naa wax ne su ma xoolee la ma cay def rek loolu laa cay defaatee moo tax yu ci ëpp nit ñi léeg-léeg ñu ñëw taxaw ne ma ah prix bi da nga war a wax ma ne leen déedéet ndax nit ñi bokkuñ léeg-léeg sax nit ñëw wax ma tawatam ma yëkkati ko jox ko ko du ma fay dara léeg-léeg nit ki ma jox ko ko laajuma ko ci dara mu yëkkati lu ëpp la ma daan laaj jox ma jox ma ko moo tax man yooyu yëpp du ma euh, fali laa alhamdulilah sukkur ko soxla daal sooma ma moom incha allah bi xawla xuuti ci jot. ñaan mhm. mhm. mhm. Hmm. man nag lépp lu may def day méngoog lislaam man sax mayuma kenn doom aadama mu ñëw taxaw naan ma sëñ bi eh, dama bëgg nga ñaanalal ma kii alal jim yor mu jox ma ko wala mu dof wala mu dem wala dañoo xëccoo kër gi eh, sama doom yi bàyyi la ñuy xëccoo kër gi dimbale ma bubbum ci waxati yooyu yëpp kenn ñi ma wut ma koo wax ndax ku ma ko wax du ma du la jànni waaye dinaa la waar ci lislaam soo ko déggee alhamdulilahi rabbil alamin soo ko déggul xam nga ne sëriñ bi du la ñaanal ci lii man daal lépp lu may ñaanal nit dafay méngoog lislaam ndax toujours ma wax ko sama tëraayu bàmmeel kenn du ma fa fekk kenn kenn du fa lu du sama wayjur du sama sëriñ du sama rak du sama mag du sama soxna du taalibe bi may ñaanal kenn du ma fekk ci sama tëraayu bàmmeel gungee ma rek lañ man ah sëñ Ibrahima de génn na ñu jàppoo sang bam set sàng gas suul ñaanal ko mu dem waaye kenn du ma fa fekk léegi nag li may defal nit mu bon léegi nag yi woo alak booba di ma fekk sama bàmmeel kenn mënul wax ba ma defal la loolu doomu adama waaye nag lépp loo xamante ni lu méngoog lislaam la loo xam ne du yàq mbokk du nasaxal lislaam su ma ko nit ñaan loo mu fay ma ak mu ñàkk maa fay mu jox ma ak mu ñàkk maa jox dinaa ci ñaan yàlla du ma fayee ko nit mukk mukk ci ñaan yàlla loolu moom ñëpp xam nañ ko fa lilahi alhamdu wa sukuru noonu laay liggéeye moo tax alhamdulilahi rabbil alamin yàlla ak may dimbale ci aajooy yàlla yi fa lilahi alhamdu wa sukuru nit ñëpp fu ne lay nit ñi jógee léegi-léegi ma ñaanal benn nit mu boole maag ñaar fukki nit boole maag kii kii boole maag kii kii boole ma damay toore sama téléphone bi di sonné sëñ bi diwoo ma booleeg yow sëñ bi di ma booleeg yow lool yëpp fa lilahi alhamdu li sellal ak liggéey moo tax loolu am maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax alhamdulilah euh, ci yan waaw parce que mën na nekk kay am na ay ñaan yoo xam ne ay gàllaaj la nga di ko takk ci ki mën a takk yàlla mën na koo dimbale lépp lu dal ci moom lu ñëw nar a ñëw ci moom du du si am na ndomba lu ñuy defar ndomba lu yoo xamante ni dañ koy wax wallu kii euh, dunia ndomba loo xam ne maa koy defar di ko defar di ko tuddee dunia dunia moom ku ne xam ne ne mooy àdduna lu wut ci àdduna lépp loo xam ne luy jógee ci mbiru doo àdduna la ci mbiru doomu aadama tënga ci incha allahu rabbi bi hawlillahi wa quwwati ci rab wi ñu koy defaree ak lañ cay def soo ko takkee ñu bari xam nañ ko ñu ngi ñu koy defar loo ñooñ xam nañ ko ku ko ci takk alhamdulilah rabbil danañ koy defar it ci jaaro waaye jaaro moom lu ci ëpp soo ko ko defaree lu ci ëpp raw fi la day dem da toog rek naan sama jaaro bi damaa toog gisatuma ko wala nanga ak nanga danañ koy defar ci téere yu ndaw yoo xamante ni du doon sax euh, gàllaaju dunya waaye day doon loo xamante ni maanaam alhamdulilah rabbil alamin danay lay aar ci lu bëree bëri waaye mbiru ndomba dunya bi nag moom moo ci gën a yéeme moom loolu moom aar nit ci lu bëree bëri takk ñoom danañ leen di defaral saafara ñoom tamit ñi di ko sangoo wala di ko raayoo loolu yëpp danay am alhamdulilah. Hmm. waaw alhamdulilah léeg nit woo ma ci réew mi nekk ku am tur euh, tubaarakallaahu euh, di ko def maa ngi dana ma fàttali ndoom si yàlla si yàlla na yàlla yërëm ko te xare ko aljana te yàlla oyofal suuf ci kawam muy ku baaxoon euh, muy sama wóllëre muy coon sekk Thione Seck sama wëlëre la sama xarit la bi muy génn àdduna si semaine boobu ñu ngi déggante mu am yu bari yu am yu ma doon waxtaan ñu ci ci waxtaan euh, ma xam ne ci waxtaan wu bari ci loo xamante ni ci jamonoy àdduna bi jamono ju yàqoo euh, te ël àdduna dafa am ñoo xamante fii ñu fi ñu tollal àdduna àdduna tollu fa maanaam foog nañ ne àdduna alal rek la ak diggante sol lu bon ak wax lu bon ak def lu bon ca àdduna loolu àggu fa ñin ñoo fa dem rek mais àdduna bët bu yàlla sàkk kenn ku nekk danañ la wax diw ne la génn na àdduna wala ci semaine wala ci weer foofu nga dégg ko te koo xamoon nga ko wala mu xam la te ran la rek àdduna ran la rek ñun ñëpp dañoo ran ku ku roccee ku dem rek am na yow avancé nga bët bu set rek koo dégg ne génn na àdduna xamal ne yow jéegu nga ay pas pour dem ci dee kuñ na la wax ne diw dem na rek jéegu nga àdduna pour dem ci dee ñi nekk ci sa buus bi ak yooyu nag euh, ci li ñi ci nekk ci li nga xamante ñoo nekk ci lu neex yàlla pour def ci yéen ay comédie wala ci def nangam ak nangam pour siiw wala yenn ci lu ci neex yàlla soo ñëwee ci man su ma la ciy ñaana man naa la cee ñaana yàlla waaye ki ci nekk ci lu naqari yàlla moom wala kulli alim jërul sax ngay ñëw ak soo ma doon fay milliard ñaana lu ma la yàlla <laughs> waaw sant yàlla bu baax te gërëm leen yéen moom suñuy euh, kii ngeen wax dëgg yàlla lépp loo xam ne nii euh, actualité xew na ko rek yéen a ngi ciy gëstoog ñun euh, yàlla dogal yàgg nañoo site bii ñi ngi ñaan yàlla yàlla def mu nekk télé boo xam ne ay plateau yu bari yoo xam ne da ngeen ñu ci invité ñu ci toog te kat wax dëgg yàlla kontaan nañ ci seen liggéey euh, loolu moom alhamdulilah rabbil alamin seedaloo nañ leen ko bu baax a baax a baax a baax ndax ñu baree baree bari yàgg nañ fe seetaan ci sama euh, euh, émission daal di may woo téléphone ne ma seetaan naa si émission ci wasaare te wasaare nag lim tudd mooy wasaare ay xibaar te lu wër rek. comme lu wér ci ngeen ne di ko wasaare alhamdulilah rabbil alamin su ngeen tànnoon lu bon di ko wasaare it konoon musiba rek day am day jàll rek waaye musiba da am alhamdulilah ba ngeen tànnee lu wér su doon seen lii nekkut luy jak luy baax man kilifa laa su ngeen ma ci woowee duma leen ci wuy su ma leen ci woowee du du ngeen du ngeen ñëw alhamdulilah rabbil alamin bañ sante yàlla nag mu nekk ci lu baax ñu ngi sant yàlla bu baax di wax jaam yàlla yi nga xamante ni ñu ngi ñuy woo Euh, toujours ñuy wax benn kàddu rek la ñuy wax ah sëñ Ibrahima de ku naqadee jot la sëñ Ibrahima ku naqadee jot la wax dëgg yàlla loolu moom am na léeg-léeg sax nit ñi ah yow de jot président la gën a yomb waaw dëgg la parce que ku ñëpp soxla du yomb sama téléphone yi dama yor ay téléphone waaye bu nekk du noppalu tar kar nit ñi wax dëgg yàlla euh, alhamdulilah rabbil alamin am nañ yéen a bëgg nañ ma te nit dama koy ñaanal yàlla mu boole maag ay fukki nit ñaar fukki nit ci ay ñaan yàlla ñoo ñëpp suñ dawasee jëm ci ci man yaakaar jooju loolu rek kay tax mu naq ma naqadee jot waaye képp ku may woo incha allah rabbi dinaa la wuy soo ma jotul it soo bàyyee ci whatsapp bi message incha allah su la su ma ko gisee dinaa la tontu maa ngi jéggalu ñëpp ci kàddu yi lépp loo xam ne wax naa ko fi mu naqadi doom aadama yi maa ngi leen koy jéggalu sama matadi la lépp loo xam ne wax naa ko mu neex doomu aadama yi yàlla la mooy borom kun fayakun asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu macha allah